ñi ah. ay sofa every Wednesday nañ ko dee wone ci tele bi ñi ay lal mm-hmm. tey nag nañ ñëw fii pour tànn kuy win lal bi tey mm-hmm. jërëjëf Anta ah, jërëjëf maa ñi ma mbokki déglukat yi yéen a ñoo seetaan di ñu déglu li ñu leen wax nag tey dañu war a ñëw pour joxe lal bu rafet lal boo xam ne bi dafay ànd ak lépp lal boo xam ne dafay ànd ak dressing table am ànd ak armoire am fees néeg rëy ba dee dëgër nag teg ci seer teg ci moom lañ leen fa yéene jox tey xaw la yàlla def nag muy wër sa ñu ngi ñëw def draw bi ca kanam balaa ñu fi jógee di ngeen xam kan moo koy win waaye ku ko mën a win nag li ma la wax rek démb moom laa lay wax tey foo mën a ne rek ak koo mën a doon dinañ la ko indil ba sa biir kër waaye ni ko Lamine Fofana waxee léegi nee na màkk gi dafa jot te Lamine loolooy dëgg làmmin màkka dafa jot ñëpp di dem màkk ñii am paas di dem ñii nim se kaaba amuñu paas waaye nag ñu joxe ndax fu ñu gisee joxe bi ci président bu baax bi Yahya Jammeh mi fi indi Gamcel moom la ñu gis muy joxe rek ñu di ko roy ndax ñu ne booy roy royal lu baax muy def lu baax di joxe ñuy roy ñu ne di def lu baax ba tax na laamin ñu ne at bu nekk maa ñi ma dañuy jox fukki nit ñu dem màgg ngeen ne doorati ngeen yéen a ci joxe baati yéen a ngi ti ñi nga xam ne yàlla oo na leen te amuñ paas gamse la ngi toog nee na maa leen di jox paas ngeen dem waaye nag maa ñi ma paas bi ak lan lay àndal paas bi antinde dina àndaa thousand dollars mhm. ñu lijjantil la sa kayit yi yëpp mhm. yóbbu la nga dem ami vaccination bi mhm. ñu ñëw wala sa nañ la ko jox anti ndey bi nga yóbbuwaale mm-hmm. maaka bi daal lu ne la àndal mm-hmm. dinañ la teral mm-hmm. dinañ la sargal dinañ la dimbale daal wan la yoon bi nga xam ne soo demee ni nga confortable ba bëgg a dee laa bi foofu nga ne ñaata nit nga yóbbu maaka ren Ah, minang afanya ya, mo tan nyen salam maka hmm. andon ka tiketo in suda sunata bake dal salu ka rekol dun diya soto hmm. andon tiketo bola je be 1000 dollars dila mare ya, wala wudi kilinti hmm. dola ko do me alon ka sema kura pocket money ani la ko be di salam maka sey yalla ya ko nyeme ando ila sila ko ba be to bola ila vaccination lu ke sam airport ni rafa ngam sele be bunyal parce gam sele be ko kala maka da sa <laughs> do sal dara de la do sal dara manyima ñu ngi ko rek ci adge waye amna lo xamne mom lañu sumbu sumb ko nag tama war a jeex mooy kër gi maa ñi ma kañ ngay joxe kër gi kër gi anti ndey hmm. xam nga weri koor gaa ngee dugga si na ma bëgg ñu oor ba pare hmm, anti hmm, ndey ndax mu xumba na ñu bëgg daal mu grand waaw dina rëy foog mu xumba parce que kër gi lu rëy la mu ngi Brufut Heights um, two bedroom la ñu fonish ko def lal yu rafet mhm. togg yu rafet mhm. waañ ba mhm. wanak yi yëpp ñu defal ko ba rafet rafet ñoo xaar ba weeri koor gi jeex ñu gunge ki ko moom gunge ko gi gunge gu rëy. Mhm. Gambia yëpp nañ ko waxantoo. ñëpp nañ ko waxantee mu mel ni Lamine bés bés ban ban bés lañ koy joxe ak ban weer. ñi August garo min kanat limi wannen contrôlé mu mbe rafulo kala pour mo se korda ñi gagné mhm. andum ba fala mo le da sem kadu sa dundi do kadu ñame la chance ka waro ñam mhm. go ne bu kadu ni fogo bele fo last day ya do askena may da gagné non ba ni kadu kabren say bala no mo tara jele wato wadi kadu na be tara jele fo wato si na waro se mari se ke mo ko be gagné la ñen na malak moy fo ñen waro mo be sakre gam sala no so do don wala ma boroti ka kato dundi wa ma ñi ma dama déggon nga ne 29 August du noonu su ma juumul waaw 29 august mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeneen ci weeru august fekk su soobee yàlla ñu tëbaski ñu ñu maanaam euh, korite korite ba pare korite ba mu am ay juróomi fan juróom-benni fan nga joxe kër gi waaye kër gi ci ñaata nga koy joxe antinde kër gi su ma la ko waxee hundred dalasi rek laa ko joxe hundred dalasi rek antinde téeméer rek téeméer rek nga am kër Lamine nooy def ci biir kër gi Ah, koɗa ñin dal fimo ɓel ɓe tarraje ete mm. mari men gagnata mm-hmm. ila ɓa ko sigaro ete ɗum koɗa ñin kono because ah, laron ɓe tarraje si donc everything mm-hmm. ko ɓa ko ɓa fofe gata ko ɓa kono bon kono mewme aɓe ɓe tarraje ñeeta mm-hmm. penke men naw don a sake sungar kolat andu am na ñu ma doon laaj naan ma fii léegi august ndax da continuer di joxe ay lalaki ay toogu walla lan dañ ma ko laaj ma laaj la ko waaw waaw tey suñ joxee nii lal bi ñu dem nag kooku nag fu mun di nekk nañ ko koy yóbbul dinañ ko koy yóbbul fii ba fa tooto dinañ dem dinañ ko koy yóbbul bugga naa nag suma mbokki waa base yi inshallah ak waa bansangi yi ak waa Gambisara ak yooyu noonu yëpp nag wax dëgg yàlla ay client lañ ñu win definitely bugga naa mu génn a Banjul gi mm-hmm, mm-hmm. Ah, baax na mu dem si dex gi nañu ñaan rek nañ loolu rek laa bëgg fi ne nii ah, gi dama déggoon nga ne kër gi téeméer a koy joxe waaye màkk gi nag ñaata koy joxe maka mo maka fango nga wo daat yandi baake wala kam duɓe ɓe keɗo ɗa so talluɗo kato ala ko gambia ɓe so kenol malaf mo daabon la jee laftale mo be chance to mhm. kata maka gam sel mo company be alan ko gambe be le kanyante malaf mo afko monko do so warna masando dala saluota e kado se ela kol ke ela hajol be ko gamsel be tallo tale bulle still ma ngani remayta maka dafa am ko wil maka mhm. te nekku julli nak noy def ak dama koy yóbbu Rome. jeex na bi te ma yóbbu ko Israël. mu dem siyaare ji fu mu bugg a dem rek mu dem. siyaare si mm. waaye nag am na ñu ma doon laaj naan ma xam nga rek nit ñi dañuy laajte. Mm-hmm. te bu ñu gisee loo xam ne dafa am rek foog ñu laaj. Mm-hmm. waaye nag bu ñu laajee foog ñu leeralal leen mm-hmm. ki ko war a leeral mooy yéen. am na ñuy laajte ne suñu fu ne passé màgg wala Rome ndax mun nañoo jël koppar gi déet ndax nee dégg nañ ne koppar gi rek dafa bari de. bari na lool anti ndey mm. waaye ku ko win daal. màkka mi te Rome. su kenn yow mënuloo dem nga jox ko sa yaay jox ko sa papa jox ko ku la neex jox ko yéen a ma ko ku la neex jox ko laajte naa ko waaw ñi ma ko war a laaj laaj naa leen ko leeral nañ ko ba mu set leeral nañ ko ba mu set boo winee paas yi wala nga dem Rome boo mënulee dem màkk wala mënulee dem Rome am nga sa yaay am nga sa papa am nga sa mag am nga sa rakk am nga sa nijaay am nga sa yubbaay tànnal kenn ku la neex nga jox ko ko mu aji ñaanal la ndax nag ñu paas bi màkk lañ koy joxee ñu ne duñu ko wecc ci xaalis yéen a ko laajoon laajte naa ko dégg ngeen ko ba mu set waa ma ne euh, Lamine Fofana kër gi dafa am ñuy werante ñu naan daal duñ ko fonish ñi daal dañuy wax rek waaye kër rek la ñuy joxe duñ ko fonish ndax yooyu mun nga koo leer ba mu set ne dinañ ko fonish am déet mbéyum fa la moo beer doon sañin lon ko gam set bu kaa fo yaa bàyyi <laughs> ni nga fo ni mata tambe la mo kamoro nay ko waro wati ngo example set jane jama jama ni nga fo fo ka kele fo ba mo ka fo yalla na tambila andu ka kele ak kene mato mo be nyaaje oto ase ko yalla mako nyen ko da nyen fofe min kala bun kono babe kala je ni membi la ba ko ron ba sen na ko kala ba ko no da ma bita ko da ko no fofe nyen tala je babe kele ma de jela adu sallahi di nyen nako to nyaato nyaa nyimbe kala kadu gamsel bu ka fo ya bay batay ma nyima ci latte bi rek te nit ñi di ko latte tamu lëndëm seen xel nit ñi dañ fogg ne ndax kër gi kër la go xamne gi buñ la ko joxee dañuy toog ba jëmmi jamono ñu ne la delloo ñu kër gi ñii ne dañuy laajte ndax kër gi buñ la ko joxee yaa ko moom dangay am sa kayitu kër moom kër gi moom caabi ji yow yaa ko mën a leeral leeral ko mbokk yi ñu dëkk kër gi ku ko gañee hmm. ku ko yàlla wërsëgal hmm. kër gi sa bos la hmm. yaa moom yaa moom lu la neex def title deed bi gamsel custom ak nangam moo ko bind moom lañ faa binda loolu dañ ko leeral ñëpp kër gi yaa ko moom laan bi yaa ko moom togg yi yaa moom waañ bi yaa moom mm-hmm. lu fa ne daal yaa ko moom ñax ba sax yaa ko moom yaa ko moom waaw te dégg naa dañuy ciy def ay fulawa ak yooyu yëpp dañ koy defar ba mu rafet waaye mbokki déglukat yi ba tey rek ci waxtaan bi jógaguñ waaye mun ngeen maa indil tuuti pour ñu war a def draw bi yëngal ko jaxase ko ngeen gis ko pour ñu war a def draw bi ci kanam waaye balaa boobu ñu defagum rek ngeen seet benn advert boo xam ne moom lañ leen di tegal bégal leen ci jotaay Gamcel rek <laughs> indi leen waa mbokki déglukat yi yéen a ñuy seetaan ba tey rek si kanam tuuti dinañu jaxase yëpp yi ñu seet kan la yàlla wërsëgal tey pour mu win li nga xam ne mooy lal bi ñu lay indil yenn sa kër di la ko pooseel ñëpp di ko gis sa njaboot gis ko joxe boo xam ne li ma leen wax rek du ànd ak xol buy tëppi tëppi waaw doo daw da ngay toog sa biir kër rek ñu fekk la fa la am li ko moom yéen doog yow fixal la ko muy lal boo xam ne bi mucc na ayib kooku gisee xam ne la waaye nag mbokki Gambie mbokki déglukat yi li ñu waxee rek ñu ne dañ leen a jox nag lan paas màkk waaye maa ñi ma ñëpp ngi déglu Gambie yëpp a ngi firi seen noppal di ma déglu ñëpp naan ma yaay ministère kañ la raful bi gam kañ la ñuy joxe paas màkk bi kañ la raful bi ma ne leen déet damay def tenkam tenkam de nag teelu nag ba marketing nga xam ne ñoo yëre yëf yi jox ma kàddu gi ma soo ko wax waaye tey laa lay laaj maa ñi ma kañ ngay def fausse draw bi nga xam ne mooy draw bi nga xam ne moom la nit di pour màkk gi anti ndey na ñëpp pare na ñëpp pare pare leen jënd leen scratch card yi fifty dalasi rek. Mm-hmm. nu mu gën a baree rek. Mm-hmm. nga gën cee dem màkka.